laan bikum sénégalais yi fa ñoo sonn dund gi fa cher ba jéggi dayoo allah libération moo ñu ko xamal kuréel gi ñu dénk wàll wi ñoo ci xamal jàngat ne borom kër yi fañoo ñoo sonn lépp luñ doon dépensons fa yokk lañ daan lekk fa yokk rax ci dollu courant bi ñaari facture mujj yi fa yokk ba jéggi dayo l'évidence yéen a kaay ne moo tax it wote au conseil yi sénégalais yi faale wuñ ko yëgaluñ sax seen bopp ne xay wote am na ndax ñoom fa xam la ne luñ gën a tal mooy luñ lekk alxuraan jaaxle bi nag fa nar a gën a yokku de ndax nawet bi fa mu jëm baaxut ah, yaaw seetal dugub ak gerte yi nga xam ne fa ñuy teel a ñor ñoom bu taw bi dakkut fa yàqu te su boobaa ci réew mi si du quotidien jamono ci ay jafe-jafe njiiti réew mi moom Macky Sall fa dem ca tubaab ya na leen yéen li ngeen ñu digoon ñun réewu Afrique yi ci jàppale ñu ci wàllu xaalis ba ñu mën a dékku soppite gu am ci climat yi dara ngeen ci defut yéen tubaab yi laa si yéen kaay na Macky kay fa tàkkale attaqué gaañ léegi ko yéen kaay dëggal ko ne ñu jiite réew yi nga xam ne fa ñoo am xalal Macky fa leen a hokk de wal fajiri yéen kaay gaay mel ni ku naan ko Macky fa xamul ne ndaw Afrique yi soxlaalatuñ dara tubaab yi rawatina France fa ñoo bëgg am suñ yëfu bopp ba dootuñ ñaan wala ñuy yalwaan wala lebaleel ñu xaalis yéen tubaab yi moo tax Abdoul Mbaye ma ngay digal njiiti réew bu France ni war a doxalee ci kanam ndaw Afrique yi nga xam ne fa ñoo wan ginnaaw France suñuy maam ba léegi tubaab yi fa ñuy noot fa jot ngir yàlla ñu moom suñu bopp réew mi yéen a kaay ne faa di wax ay xam ne fa ñoo bañ ne duñ def déclaration de patrimoine maanaam seen xalal ji duñ ñaata la ba ëllëg suñ ko <laughs> yow ñeenti téeméer ak juróom fukk ak doomu aadama fa ñoo bañ a wax seen alal comme ni leen ko yoon santé yéene kaay bi ne Badio Camara Ismaïla Madior Fall ak ki fi nekkoon Semga Mamadou Sow ñoom doy nañ ca kaa beneen kaa bu garaaw bu amati Sénégal mooy caxat-caxatee suuf si nga xam ne ñi jiite réew mi ci lañ nekk ginnaaw hôpital la Dantec ba nga xam ne ñetti hectares ya caxat-caxatee nañ ko jaay ko fi mu toll nii sénégalais di jooy noppeeguñu léegi nag fa ñoo dem ca université Cheikh Anta Diop xàppati fa ca ko Bougane moo wax ci turbine yéene kaay ne lañ ko jaayee nag ëpp na juróom-ñetti milliards ndax 8600 mètres carrés la société bu ñuy woowee la dese ka néew ca suufu université ba lu ko mooy fañ koy jeexal de nay leer laneen lu leer ba yegg ca naññ ja mooy na ñetti docteur ya ñu tegoon loxo ci mbiru soxna sa doon xam doom mujj faatu ak doom ja ca Kédougou Mami Doura Diallo docteur yañ tegoon loxo bàyyi na la bi seen kër yi le quotidien yéen a kaay moo ñu ko xamal xattekat bi fa woyafal yëf yi li ñuy wax contrôle judiciaire léegi ko yéen a kaay ne nañ wax wax ji buñ ñu deltu borom këru Mami Diallo moomu Malick Cissé la tudd ñu di ko wax Mor xam nga lu wax nee na maa ngi leen di gëñal ne docteur yi ñoo dagg sama bopp liir bi nenne tuuti bi te booba mi ngi dund ministre de la santé rapport boobu mu joxe ay feni neen la dara du ca dëgg ndax ñoom benn pàcc rek lañ déglu muy docteur yi ñu lay seeni lay lu tax déglu ñu ñun te képp ku déglu benn lay rek atte mooy na fa ngaa far sa atte du maandu docteur yi fa ñoo def njuumte yàq nañ nag man sama dund ki leer na leen na ñoo rey sama jabar ak sama doom te man militaire laa woon faa liggéeyal réew mi mérité wu ma ñoom docteur yi xam nañ na ñoo ko def ndax anesthésiste bi après fa tiit bay jooy gynécologue bi moom fa janna xoo xam xamul lu muy wax ak lu muy def di pat pati tey ñu mujj bàyyi leen xam nga ne loolu fa ñaaw la rafetoon ndakaaru nag te léegi fa mujj ñaaw mooy quartier bu ñuy wax almadi 1 ak 2 ak point e bés bi yéene kaay na mbënd mi ndox mi é fa ñaawal seen quartier ya ba tax kenn ñeewatul lañ li ñaaw dëgg-dëgg nag ci mbiru mbënd mi mooy juróom-ñaar fukk ak juróom benn milliard moom la ci état bi mun a dugal léegi tey sénégalais li ñu laajte mooy ci biir mbënd mi yéene kaay ne milliards yooyu ñu wax na ci mbënd bi lañ ko dugal fañ ci amal enquête ci assemblée ngir mu leer fan lañ ko dugal le wér a na en daal Dakar moom fañ doon andi solution ci mbënd mi far yokk problème ah TER bi ak BRT bi moo tax mbënd mi gën tar ba pare Ndakaaru la fa nekk ci ay doomu aadama fa bëri ba mu ëpp mu mel ni plan Orsec bi wàllu business la rek lekkee kaayo xaalis info yéene kaay mel ni ku naan état bi pexe ak i moyen ba tax mbënd mi presque amul Kaolack ren du ñenn ñu moy maire bu diwaanu Kaolack ke ñu dénk wàllu assainissement soxna ma jigéen Diouf ma ngay leeral seeni feem yi mucculoo Kaolack ci mbënd mi ma ca laa dépêche yéen e kaay wal fajiri yéen e kaay xëy jox kàddu Alintine bi jiite Africa Jom Center fay leeral li lëkkale diggante njiitiram Macky Sall pétrole Sénégal bi ak gaz bi ak ñetteelu mandat bi yéen e kaay bi mel ni ku naan mbaa du Macky pétrole bi ak gaz bi moo tax leen gérer leen mooy waa PS a ñàkkal fayda ca biir yaakaar ba tax fa ñoo fippu attaqué Macky ak Aminata Mbengue Ndiaye 24 heures yéen a kaay moo ñu ko xamal te moo a kaay na ko ak fipp de moo fa xam li nar am nag Sénégal mooy gouvernement boo xam ne opposition bi ku jegi fañ ciy dugg Dakar Times ne Macky Sall njiit réew mu neex ko ak mu naqari ko amut pexe faaw mu ubbi gouvernement bi ku jegi dugg ki xëy dugg diiwaanu Thiès càmbar xeexu wata député ya fa amoon mooy exclusif yéen a kaay nee daal moo doon capitaine u bato bi waaye fa suux mook équipe bam bam xàndaloon doon jàppale Macky xaw tuuti ko doon yeewi ak wàllu ci boppam Abdou Mbow Augustin Diagne Talla Sylla Siré Dia fañ leen a mbuqi ngàdd rëkk bañ leen di watat ku nekk ak wéywoom la jox nee na Malick Mbaye moom nekkul Maodo këram Yankuba Jatara jaay taar la fa nee woon Vox Populi moom di ñu xamal xana moo tax yeewi askan wi bëgg a def ñetti groupe parlementaire ca assemblée nationale critique yéen a lijjanti mi nag ña ngi ca cappaandaw ga ndax 12 septembre koy taxawal enquête yéen na ko soxna yi nag fa ñoo bëgg bu ñu ko taxawalee commencement ba PDS fa ñoo bañ na duñ def coalition ak Yewwi ndax Karim Wade ci boppam moo bëggatoon a yokk doole Ousmane Sonko mi nga xam ne 2024 la tàggat yaram Ligue des champions tey ci ngoon jongante bu nar a saf Paris Juventus Real équipe bu mag a mag bi mooy fekki Glasgow dugal kat bu say bi nag moom Haaland ak waa City Séville lañ jëm stade yéen a kaay ñu ko xamal record yéen a kaay na Koulibaly ak Mendy ña nga jëm Zagreb de l'observateur moom di ñu xamal benn xale lu góor lu am fukki at ak juróom-ñaar fa sàcc baayam chegu bankam ronk fa ñeenti millions mu ëlbati ko sàcc ndeyam yaayam ay takkaay or ak yi ni jaayee toll na ci fanweeri million ak juróom ay waay ndaw sàmba libération moom di ñu xamal ne benn maa mën bu xaaba bu ñu wax mbay kan fa xam juróom benn client yu ñëw ci moom mu ne leen faa leen di soppil xaalis yokkal leen seen xalal ji ñu ne ko noo koy defee mu ne faa xam jinne ju tudd Shamzu lu ma ko wax rek mu defal leen ko ñu d'accord kenn par kenn mu leen di jox ñuy naan aka sangu gaay mujj gëlëm xam nga ñaata la jël si ñoom lu ëpp juróom fukki million te ñoom soppiluñ leen benn xaalis seen alal dara ca yokku leen gisee ne nag waaja fa leen a dóor ñu dem porter ko plainte waa dig ya ñëw teg ko loxo waa ma ne génn bëgg gu ëpp gi fa nga yomba nax man faa xam jinne kaay ma soppi la xaalis yokk sa yokk sa am am ba pare laaj la vingt millions wala dix millions soo xamee xel fa ngaa war a bañ xam ni kii bu mënoon soppi millions yooyu boppam la koy soppi du la ko laaj bëgg xaalis bu yomb moytu leen ko ñaaral kaso rek la lay jëmee wala boog ñu nax la lekk sa xalal su ko defee na nga gën a ñàkk xay xenu la